boo ko defee liggéey bi nga xam ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne Sénégal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey boobu am na seen benn collègue yenn des journalistes yu mu koy wax sama fait sourire daf ma ne saa yu may musóoru taxaw ci glace bi xam naa sama xel a ngi ci deux mille vingt pense encore plus intensément à J'y pense très sérieusement. êtes dem candidat. waxtaan ak sénégalais yi xale yi mag ñi ndaw soutien qui artistes bien sûr à